Daaru Salaam jot na ñu xam fi ñu jëm ndaxte ñun vraiment mënuñu am Daaru Salaam Gaawaan je veux dire ndax mënuñoo am les deux plus grands centres de vote yu nekk Mbàkke muy maam Cheikh Anta ak Soxna Xari Penda li ñu am dafa am solo foog ñu wax ko ñun ñu xam ko donc ku fi fal ñun ñoo la fal parce que kii di maam Cheikh Anta di Soxna Xari Penda xam ne électorat boobu Gaawaan ak Daaru ak Santhié ñoo ko fa indi te ku fi falu maire fa ngay baatre waa léegi te kuñ fal maire dootu la gis dégg naa au passage monsieur le maire nee na mairie bi il a mis le prix bu ko kenn fontoo il a mis le prix pour avoir la mairie ñu koy wax ne dañ ko tontu ne ko su contrat bi jeexee nañu delloo suñu mairie parce que kenn du ko renouvelé ndax ñun fi ñuy jëm ñeme nañ fa te xam nañ ko te li ma gën a neex mooy dañ maa sas ndax jeunesse su Daarou Salaam sama tonton yi dañoo ñëw gis ma waxak man. na ma dañoo bëgg nga engagé wu ci politique parce que gars yi sutul leen gaa sax yàlla nga ëpp diplôme xam nga dañu naan saabu di fóot boppam yaakaar naa Fatou Ba bu Khalifa wax nañ donc loolu doy na donc li am solo daal mooy damay woo tout le monde j'appelle à tous les fils de Gawane tous les fils de Darou Salam et tous les fils de Mbacké en général ñu àndandoo jàppandoo dem jëli suñu mairie je lance ici ma ma candidature dès à présent te dinaa ci liggéey dinaa ci béy sama tànk ndax xam naa ne am naa jeunesse ak ay femmes yoo xam ne déterminé nañu engagé woon te ñu ngi suñu ginnaaw. Daaru Salaam nag ku ne xam nañ ni ñun am nañ luñ manqué suñu tëri bii ñëw nañ fi bañ fiy jaar campagne la woon gis nga suñu tëri bi ni mu mel jigéen ñii ñëpp dañuy teel a xëy di naajee wàcc kenn amu ci financement ñu ngi nii.